alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi bàyyi seeni sekk yow yaay kàddu Ansaarud-Din ca Gàmbi waaye tey ñu ngi ci Nigéria li gën a rëy mooy bërëb bi ñu toog euh, résidence présidentielle la tey ay taalibe baanis ñoo fi ne tàmbale ko ci xalifa bi buur bi ba ci ñun ñuy gën a suufee yan kàddu nga yëkkati alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ci teew gi nga xam ne xalifa papa Mahi Cheikh Ibrahim Niass xaadimul umma boole na ma ci yoon bii wax dëgg yàlla yàlla nga ko door a dogal in 1988 ñëwoon naa fi waaye boobu soxla la woon man ma aas mu sëñ daam ñëwoon fekkee fi gàmmu Lagos bi boobu yaakaar naa ne mooy gàmmu yi njëkk du ma ne mooy bi njëkk waaye ci yi njëkk la ci fan yooyu ñu ñu defee woon ko Lagos City Hall atam ridwanullah aley Nasiru Nasiru Diin mu baay mu ngi fi woon Cheikh Mouhamad Lamine eh, Seyda Seyda Hawa mu ngi nii ci yoon bi tey ñëw na ak eh, ñu fekk fii it Seyda Yaama mu nekkoon mbir mu xumba amadi Boucar Niang yan ko yàlla yërëm moom it mu ngi fi woon xumboon nañ fi lool ñu defee ko woon lego City Hall Ganaugi, gi bés bi del si ñu defee ko apapa ci kër Garba Hamza ñu jógee fa wax dëgg yàlla ñu invité ñu Victoria Island ca kër suñ bàyyi Issa Rabiu mu doonoon taranga yu rëy booba gàmm gi lu lu em la woon ba tey su gàmm gi amee nii ba ñuy def par state state loolu sant yàlla bu rëy la booba ak léegi 1988 ba léegi xam nga at yu yàgg la tey ma dellusiwaat fi fekkee lii lii ci ci ndigali xalifa bi ak éeneem gu rafet ak yaatalam dëgg dëgg xatalut dara ba bam toogee ba tey lu muy fexe rek na mbir mi yaatu rek mu ngi ci ngir la ko bàyyam waxoon ne ko yow yaay xaadimul umma xaadimul umma nag mooy kiy liggéeyal umma bi kooku du xatal dafay yaatal wax dëgg yàlla mu ngi ci yaatal yaatalam googoo tax bi bii ak si Banjul mu boole ñu ci Gambia waaye ñun Gambia dinañ santaat yàlla ci jataay bii ngir ngir Maulana Cheikh Ibrahim bi muy ñëw fii Nigeria Gambie la jaaroon xam naa suma ma bettutoon nataal ba nga xam ne defoon na ko ca aéroport ba image boobu doon naa ko indiwaale woon leen nekkee rek fii la toogoon di xaar mu ngi nataaloo suñ benn baay bu ñëwee Tafsir Keba bi tey kooku mooy woon mu xaddam mam ca jamono jooju e, ndem si yàlla ku ñooy alaaji Suley Mbenga mooy ndaw bi nga xam ne moo génne woon billet bi suñuy maam alhaaji Ousseynou Touré mi jur suma yaay mu ngi fa woon nga xam ne bàyyi la ci yaafaan Njaay Touré Mahdi juddoo juddoo këram ca sukkuta ñoom ñooñu ñoo daroon bàyyi kerek pour mu mun a am billet am vol pour ñëw Nigeria lu bari xew na ca nag jotaay laaju ko pour ñu wax ko waaye suñ toogee tey ba doo doomi Gambia ñëwaat fekkee lii nga xam ne bàyyi Gambie la jaaroon pour ñëw Nigeria ba àddina yàlla def na Nigeria yëpp toppa ko tey bon loolu ñu suñ ndam la waaye dama describe bàyyi ne mooy doomi Sénégambia su ma ne bàyyi doomi Sénégambia la dina jaaxal nag sénégalais dinañ ne déet Sénégal la juddoo ci Taïba Niassène waaye Gàmbi la màggee ci Kër Sàmba ga baayam nekkoon looloo tax ma ne doomi Sénégambia bu tedd bu barke bi di barkel di yaatal mbiram Mawlana Cheikh Ibrahim dañ ciy sant yàlla bu baax di gërëm xalifaam yi ko jiitu yëpp Seydi Aliou suñ baay Alhaaji Abdoulaye suma baay suma sëriñ xaaj Ahmedou suma sëriñ suma baay Papa Cheikh Ahmed Tidiane ba ñëw ci xaadimul umma yan na ko yàlla yàggal ci xilaafatu gi yokk ko wér ñu ngi gërëm Medina yëpp di nuyu imaam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé porte parole Cheikh Mouhamadul Mahi suñ baay baaba Lamine ñëpp ñu ngi leen nuyu di ñaanal yàlla. ñun Baye Séni leen laaj dëgg la Gambie góor ngeen lool. ci ci ak taalibe yaa di góorgóorlu ci faydu bi. mais noo gisee Nigéria ak jël ci bi leen jël ci fàttali na yow ak sëriñ bi ànd. Euh, wax dëgg yàlla ku tukki rek. xeeb sa mbugeel ci bàyyi ku génn rek da ku génn rek da xeeb sa mbugeel ci bàyyi jàngaat beneen darsu pour yokk ngir soo tukkee di gis lu la yéem dinga gis lu doy waar di di nga dollee góom li nga ànd ak Mawlana Cheikh Ibrahim ne lii lu ñu war a téye la koo koy bàyyi ku toog senegal rek doo xam waaye ku génn xam ngir mission baay dafa war a daj àddina si yëpp te mu ngi daj fu moo tax wax dëgg yàlla démba ñaari vol vol bu nekk juróom benn nit spécial vol lañ ko yónnee loolu loolu Mawlana Cheikh Ibrahim rek a ko am waaw ñaari vol ñoo ñoo départ tàggandoor te biñ accès Lagos wax dëgg yàlla réception bu rëy lañ fa am teeru bu rëy taranga yu rëy ñu jóge fa naaw takk Sokoto fekk fa kilifa yi yëpp gouverneur yi kanu beeg buur yi eh, kii Sanusi buur la mu nga taw taxaw teeru ñu teeru bu rafet ñu ànd dem ca kër ga fekk fa taranga gu ne te ku gis taranga googu rek di nga xam ne du yow baay a tax ana kanay bàyyi tey xalifa bàyyi biñ àndal bon taranga googu yëpp moo ko moom waaw ci barkeem la ñu ci boole nii ñun ñëpp ñu jóg tey ñëw fii ci ci Samfara nekk ci pale bi nga xam ne fii la président de dal ñuy fii wàggantee def lu nekk loolu barke bàyyi la waaw parce que dugga fa sax ay ay bunti kër yi bunti kër ngaa jéggi bedora dora aksi suñ toge ci bi président di tok loolu barke Maolana Cheikh Ibrahim la waaye ñu ngi jotal ci yep nuyo ak ziara wa Banjul ko doolee ci imam ratib Thierno alin Maska imam Muntaxa Fay président Ansaruddin ñëw ci président de la république président adamo baro yan na ko yàlla dimbali ci nguuram gi té jappalé ko ci gim Gambia ngir ku tudd Medina tudd Gambia bi faylu bi takkee dëkki capital bi bàyyi njëkk a dem mooy Banjul te xalifaam yi ku ci mos a toog ci rek fa ngaa a dem mooy Banjul xalifa xaadimal umma booba ba tey naroon naa ñëw waaye feebar bi ak yooyu gàllankoor yi am moo tax waaye jàpp nañ ko incha allahu rabbi suñ koore suñ oree naanee ba pare rek mais juun dinañ ko def mu ñëw ñu nit ñu góorgóorlu ngeen ñaanal ñu yàlla yàlla dimbale ñu ñu am ci tawfiix. ngeen def waaw ñu def comme Nigéria <laughs> rek Nigéria réew mu rëy la Sénégal réew mu rëy la Gambie réew mu ndaw la waaye nag ene yi ëpp na réew mi. waaw jërë ngeen jëf maa ngi télévision yi jóg ànd ak Maolana Maolana Cheikh Ibrahim ngir wax dëgg yàlla eh, am na jamono mbir yi doyoon na waar waaye buñ toogee tey ba télévision yi tasaaroo di ñëw di toppa fiim Iram loolu sant yàlla bu rëy la jërëjëf yéenay liggéey fay du baay bi ci ji baraham Mourchid TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay du baay bi ci barxama ñu ngi leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla jox leen gërëm